dañuy dem moo gën a yéex waaye léegi kenn mënu koo jot ñu ne waaye xanaa gisu leen xet gu neex gi gëtt gu neex gi muy xeeñ ñu ne ah alimatu mii day dafa mel ni mi dee mu yor mi dee mu barke la ba loolu amee rek ba mu demee moom ca taayif gis nañ ne barke dafa feeñ ci dem leen sàmmi fa xalimatu di sàmmee gawaram yi ñëpp naan dem leen sàmmi fa xalimatu di sàmmee moom da nekkate barke yonente bi la sallallahu alayhi su yonente bu su yonente bu nekkee rek fu ñu dem rek damay naat waaye su fa nekkul rek àll bi daal di bekkoor mel ni mel ba loolu amee rek des rek xale yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam di rëbbi ñi ñi ñi moom moom demee ba ca digg àll ba rek jibril daal di seet jibril ak mikaayil ak israfil daal di soppeeku till ñëw dàqee xale yi xale yëpp daw yonent bi nag sallallahu alayhi moom ci aadaam bokkoon na ci meloom yi nga xam ne yàlla melal na ko ko mooy moom du daw du ragal du yokkot mu ne moom da nelawam gëmmentu la mu ne doxam naagu la mu ne reem muñ la mu ne da nelawam gëmmentu la bi sallallahu alayhi ñi ne du xemem du ragal moom moom dafay dox ndànk rek ba till yi ñëwee rek fekk ay malaaka yi ngi soppeeku till lañ ñi ne aw huwa huwa ndax moom la ne moom la ñu ne moom la tigi ñu daal di ko jàpp xotti dënnam bi defal ko opération kaste ko ak ay leer ak ay def ci ay leer ak ay xam-xam yu jëriñ delluwaat ko nu meloon bu loolu amee rek xale yi dem ni ñu dey dañ doon bi waaye suñ suñ suñ mbokkam Quraysh moom ci lii jàpp nañ ko Halimatu ak jëkkëram Abu Quwaafa Abu Quwaafa jóg di ko wëri bañ génnee rek ba ci digg mbedd mi ñu dajak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw ñu ne ko lu la dal loo gis mu ne dara ñu ko lu la jot mu ne dara alimatu jëkkëram ne ko gone gii nañ ko delloo yaayam balaa ñu cee door a fekk ñi daal di ko delloo si aminatu yaayam ba loolu amee rek aminatu ne leen bërki de moo ñaay yéen a ngi ñëw ne leen a lu leen xiir ci tay da ngeen koy delloo si ñu ko dañoo ragal ne gone gi jinne ko bëgg a jàpp moo tax ñi di ko delloo amin aminatu ne leen gone sama doom jii day jinne ko ragal waaye moom ragalul jinne ba loolu amee rek ba mu amee ñeenti at rek yaayam dee ba yaayam dee ñu jox ko maamu Abdul mu amee juróom-ñeenti at Abdul Mutalib dee ba nga xamee ne loolu am na nag ñu ko baayam Abu Talib moom moom moom moo ko yore ba fekkee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ko yàlla yónnee waaye moom mësta ànd ak moom génn loolu bés ba yonentu amee fukki at ak ñaar ci la àndoon ak moom di dem traité Cham bañ demee ca digg dëkk ba fekk am na làbbe boo xam ne jàngoon na téere yu njëkk yi alquran daf leen doon wax ne na kama yaarifuuna abnaahum moom xam nañ ko niñ xamee seen doom yu góor yi sallallahu fekk làbbe bi jàngoon na téere yu njëkk yi ba xam ne bés boobu yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ne moo mujj ci yonent yi bés boobu foofu la yendu mu ne demal ool ma ñu nekk ci penc mi yëpp maa leen invité te mosu ko def ba loolu amee rek Abu Taalib ne yonent bi sallallahu alayhi yow xaar ñi suñ suñ bagage ñun ñu dem dem te ñëw dañuy éviter bañ demee mu ne leen ndax nii ngeen day ñu ne ko ñu nii rek lañ day mu ne laa buta am na ku des ñu ne ko kenn desul lu mooy xale boo xam ne moo ñu yore suñuy bagaas mu ne xale boobu mooy seen weeri badar su nekk ci yéen leer lu nekk ci yéen sallallahu alayhi wa sallam mu ne demal ool ma ko mu ñëw ba mu ñëwee rek ba mu xool ko rek ne ko gone kii kan mooy baayam Abu Taalib ne ko may baayam mu ne ko doo mu ne ko loo bàyyam mu ne ko maay bàyyi taxam ndax bàyyam dafa dee ba mu amee ñaari weer ci biiram ndeyam maay bàyyi taxam mu ne ko noonu lay demee mu ne ko gone gii tëppal ak moom gis nga yow lii jàng nañ téere yu njëkk yi gis nañ melaw yi nekk ci moom suñ xamee ne moom la yàlla xala yoon it mbokk ci bani Israël nañ ko rey fi muy waxee rek juróom-benn gawar ñëw ne dañuy seet yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngir rey ko waxee laa ne leen luy seen mbir ne ko xale bu nga xam ne mooy mujj ci yonent moom la ñuy seet bu rey ko mu ne leen su fekkee ne li yàlla loolu la yàlla namu ndax ma ngeen a fàtt li yàlla namu ñu ne ko déedéet mu ne su fekkee ne du loolu ndax mën ngeen su ngeen rayee doomu jàmm tooñu leen ñu ne dem leen yéen ay dof ngeen loolu amee rek sallallahu alayhi wa yoon woowu dañoo dëpp yonent bi sallallahu alayhi wa moo tax ba mu ñëwee ca tukki ca rañaan ma di nettali ne Sham mel ci lañ xamee ne lii ak yonent la ndax yonent mosu faa dem waaye yow di xamoon nañ ko niñ xamee seen doom yi góor Abdullah ibn Salaam mi nga xam ne moo gënoon a rafet tàgg ci yonent ci ci yahud yi moom jàngoon na téere njëkk yi ba gis melo yi ba ne yonent boobu su feeñee su ma ñëwee danaa caroog moom su ma xoolee kanamam gi rek danaa xam ndax moom la wala du moom ndax ni ko tawret meleel ba mu ñëwee ba jàkkaarloog yonent bi rek ne ashhadu laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ñi ne ko yow nga ne woon soo ñëwee danga ko laaj mu ne gii kanam du kanam ak mu ne wallaahi ba ma gisee laa ko xam nu ma xamee sama doom ju góor mu ne moom laa gën a xam sax sama doom ju góor ndax sama doom ju góor mën naa am ndeyam oruñ na ma ci waaye ba ma ne ko suttu rek laa xam melo yi nekk laa gis melo yi tawreet waxoon yépp ci moom mu ne nag yow di dañoo añaante dañoo mën a fen waaye balaa nga leen a wax ne jébbalu naa ci yow mu wax ko yonent bi sallallahu alayhi wa oo leen nga laaj leen man maay kan ci ñoom ba ñëwee rek ñoom kaaw yi ñëw fekk njiit yow ni ñu ne dina leen yéen du ngeen jébbalu ñu ne ko ñun ñu jébbalu ci yow mukk ñun mu ne kan mooy Abdoulaye ibnu Salaam ci yéen ñu ne ko Abdoulaye ibnu moo gën a rafeti tagg moo gën a xam ci ñun moo ci gën a rafet mu ne Abdoulaye ibnu Salaam moom su jébbalu woon nag ñu ne ko Abdoulaye ibnu Salaam jébbalu ci yow moom loolu du ko def mukk ndax moo la raw fuuf Abdoulaye ibnu ne ashhadu laa ilaaha seen kanam ñu ne moo fi dàq fen moo fi gën a naafeq moo fi dàq soppi ji ko ba loolu amee rek yonent bi sallallahu alayhi wa daal di nekk ci njàmbaaram rek di doxal mission bi ko yàlla yónni li nga xam ne moo njëkk am mooy yàlla dafa ne ko yaa ayyuhal muzammilu ba alquran wàccee ci moom dañoo wàcc ci moom ne ko iqra bismi rabbika mu ne ko maana bi xaareen mu ne ko jàngal mu njett ko ba bëtam yi bëtam bu mu dem di firfiri di lox néewal jabaram sàng ma sàng ma maa ngi sàng ma yaay la wàccee ci moom alquran ne ko yaa ayyuhal muzzammil ay yow mi nga xam ne yaa ngi sàngu qum mu ne ko jógal qum fa anzir jógal wax ak ñi yaa ayyuhal muddassir qum ba loolu amee rek ñu ne ko wa anzir ashiratakal aqrabina ool sa jege ñaale yi mu ooleen ñi tànqamtalu mu jigi ñu ne ko ma arsalnaaka illaa kaafatan linnaasi ñu ne ko ool mbindeef yépp mu jàkkaarloog mbindeef yépp ci àll ci lëndam ak fekk kenn du jullit ko dul moom sooy fàttaliku yonentu nam meloon ak yàlla nam wéete woon ci gëm yàlla mu ngi lay fàttali yàlla ba mu nekkee ci wéetaay moom kenn cundum yonentu nag moom kenn ci lëndëm ak kéeféer muy wax laa ilaaha illallaah di tudd yàlla di tudd yàlla ba Quraysh ñi ne ñu ne inna muhammadan ashiqa rabbahu ñu ne muhammad moom dafa faa boromam bi rek boobu yonentu daf daan tudd yàlla rek di tudd yàlla di di dox ci lëndëm Màkka ba ko moom ba loolu amee rek sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nag ñi taxañ xista bi ci ci dox bu gaaw ba loolu amee rek muy muy def loolu di def loolu ba bés rek jibril ñëw ne ko yaa muhammad iqra mu ne ko maana bi xaarin mu njatt ko boobu tamit di firfiri mu daw dem ci jabaram xarijatu ne ko ma tey fa ma doon jaamoo yàlla gis naa fa am na lu ma fa fekk tey di ma naan ma jàngal jàngal ba njett ma mu ne ko nañ dem ci Waraqatu ibnu Nawfal nga nettali ko li nga gis ba loolu amee rek fekk Xadijatu wax ne ko ne ko yow yàlla du la toroxal yow da ngay ganale gan da ngay dimbale ko am soxla ci dëkk da ngay fàggulu ñàkk kuy def loolu yàlla du la toroxal yow yàlla du la toroxal mukk waaye nañ dem ci Waraqatu ibnu Nawfal nga wax ko li nga gént ba mu ñëwee mu ne ko yow Waraqatu do déggal waaye déggal sam doomi mbokk bi Muhammad ibn Abdullahi mu nettali ko nag li mu gis yëpp Waraqatu ne ko kii kay du dof kii kay la wàccoon ci Moussa ba mu nekk yonente bani Israël moo wàcc ci moom ellante woon ma dund ba fekkee bu ko yàlla ba bañ koy génnee màkka danaa ko dimbale yonente ne ko man danañ ma génnee mu ne ko wallaahi danañ la génnee mu ne kenn mës indi li nga indi li ci askan xam li nga xam te noonu wuñ ko añaane woon ko génne génne ko la mu waxoon mu am ba loolu amee rek Xadijatu ne ko soo delloo su la laajee rek wax ko bu ko wax jànguma laaj ko lan jàng ba mu ñëwee rek mu ne ko jàngal mu ne bismi rabbika lu may jàng bismi rabbika alquran daal di wàcc ba alquran wàccee rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku bëggoon yàlla di jaamu yàlla te xamul dara ba yàlla wàccee ci moom alquran nag muy fanaane jàng nag kenn mënta dégg ni alquran ji mu jàng ba loolu amee rek Abu Jahl ibn Hisham nag ne lu ne mën naa koo muñ ci màkka ba mu des jàng su Muhammad ba ngay jàng fii ci màkka danaa ebal ñi boom ko rek ba loolu amee rek ba yonent bi déggee loolu sa alayhi wa moo gën a nekk jàmbaar mu fekk ca guddi la daan ñëw ca kaaba ga di jàng waaye ca tàkkusaan rek keroog ca tàkkusaan la ñëw rek jaarul sax ci buntu kaaba gi dafa tëb mii rek ca pelu ca kaaba ga di jàng ca kaw waa Quraysh ñu ne ah Abu Hakam sa waa nga waxoon ne du jàng ma ngay jàng Abu Jaal daal di enu doj woo xam ne toll na ni boppam nit ne dafay toj boppam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu ñëwee ba jub yonent bi rek ne pëppet daw ñi ne ko abul xakam looy daw mu ne wallaahi loo sukku yor gëlëm woo xam ne ngaa mi ka waag ca asamaan beneen ngaa mi ka waa ngi ci bopp yonent bi moo ne ma soo koy jub rek ma lekk la yonent ne zaaka jibril wallaahi mu ne wallaahi su ma jege woon dañ gis koo xam ne malaaka yi di koy gëf yóbbu ko safara sax te du jaar ci dee abu jaal moo doon wax ne fa leedu naadiyahu sanatu zabaniyata mu ne dafay oo waxambaane tooyam yonent bi ne su ooyee waxambaane tooyam yi ma obal ma ebal obb ki léegi safara yi ñu yóbbu ko safara léegi ñu ne ko Abu Jaal soo dayut wallaahi soo dayut danaa la jàpp danaa la alak Abu Jaal dalut ba xam ne keroog boñ ko nërmalee ca keroog xare Badar ba mu jëm xare seeg yonent bi sallallaahu alayhi wa nga xamee ne loolu am na nag yonent doon na wax ne sama xeet yàlla suturaal na leen mu ne sutura soosu ku ko xotti soo demee safara yàlla nga ci sori ñi mu ne xam ngeen ne sama firawna ñi moo gën a bon firawnay Moussa ñu ne ko firawnay Moussa yàlla yàq na deram ci alquran foo jàng rek yàllaa ngi tudd jikkoom yi di ko xas te sama na ji moo gën a bon muy Abu te yàlla tudd turam mu ne ngir suturaal sama xeet ñi ne ko sa firawna ji moo gën a bon firawnay Moussa mu ne seetal ku ci nekk li mujjee wax firawnay Moussa ba muy bëgg dee dafa wax ne laa ilaha illa alladi amana bi banu israila wa ana min almuslimina mu ne waaye firaaw na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamee ne jam nañ ko ca Badar ba muy waaj a dee bay xar-xar yi dafa oo benn waay ne ko soo demee maa ngi lay yóbbante ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko àddina ji may jox gannaaw bàyyi ma fi ku ma bañee ni moom àlaxira fa ma jëm du ma fa fekk ku ma bañee ni moom moom loolu la mujjee wax yonentu ne kon sama firaaw na ji moo gën a bon way Quraysh ñoom ñi nga xam ne ñu ngi jur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëpp di ko bëgg ñoom ñi bañ ko mbëtt yi ak till yi ak kéwél yi ci àll bi yëpp di ko sàkkoo jege ñoom ñi bañ ko ba loolu amee rek sallallahu alayhi wa sallam léegi nag dafay def pexe dafay dem ca taayif ci ay ba xam ndax danañ gëm ànd ak bëkki negam bu ñuy wax Zayd ibnu Harisata loolu amee rek bu ñëw taayif ne leen du ngeen gëm yàlla ma yónni ñi ne ko yàllaa la yónni mu ne waaw ñi ne ko su fekkee ne yàlla nga yónni yàlla moo la yónni ëpp nga ñiy wax ak yow ñun ko yàlla yónni ëpp na ñuy wax ak moom su fekkee ne yàlla yónniwu la fenkat nga itam narkat bu mel ni yow duñ wax ak moom ba yónantu di dem rek ñi boole kook seen xaj yeeg seen dof yi ñi di ko sànni ay xeer di ko sànni Zayd mënul lu dul xeer wuñ sànni yónantu rek mu taxaw awu ko mu dal ko moom ba loolu amee rek dem nañ yónantu bi ba tànkam yi di nàcc yonente gën a bëri yërmande malaaka mi nga xam ne moom la ñuy wax ndox tëbëy ni mi nga xam ne moo ilif ñaari montagnes yi moo ne tëll ne ko jox ma ndigal man maa ilif ñaari montagnes yi rek moom maasale ko ci seen kaw ñu jeex ba pencam yàlla yonente bi ne ko allahumma ahdi qawman fa innahum laa ya'lamuun mu ne ko mu ne ko lu ëpp naa def mu ne yow yàlla yàlla nga jugal sama xaw sama sama xeet bi dañ maa xamul bàyyi mu ne moo bëri yërmande mu ne ñaanal na leen loolu doyut layal na leen loolu doyut sàkkal na leen ngànt ba loolu amee rek sallallahu alayhi wa sallam yonent dafa bëri yërmande ba nga xam ne tànkam yi deret ji ci taq sax bëggul mu laal suuf ngir bañ xeet bi alaku ba loolu amee rek sallallahu alayhi wa sallam yonent nekk ci loolu rek nekk ci loolu ba nga xam ne waa Màkka nag daje nañ congaale ko congaale koo xam ne kenn mosu ko gis mujj gi ñu ne léegi dañuy def pexe dañuy dem moom mi nga xam ne mooy suñ mag mooy suñ baay ñu wax ak moom pour mu wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ñëwee ñu ne Abu Talib ne ko gis nga Muhammad mii indi na luñ diina juñ xamul te saare na suñ mbooloo mi ñun nag dañoo bëgg waxtaan ak moom su fekkee ne jigéen la bëgg ñi tànn jigéen ci gën a rafet ci màkka may ko ko su fekkee ne xaalis la bëgg ñu dajale suñu alal yëpp jox ko ba mu gën a riis ci màkka su fekkee ne buur la bëgg ñi fal ko muy suñ buur moo gën muy xas suñu yàlla yi ba loolu amee rek Abu Taalib oo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko sa mbokk yi daal wax nañ nee nañ lii nee nañ laa ba loolu amee yonent bi ne ko wala leneen lu dul loolu man day benn baat rek laa leen wax suñ ko waxee suñ ko waxee yaaram yi dañ leen fay jàmbur yi tamit dañ leen fay gar dañ leen fay garak mu ne leen mu ne Abu Jaal ne ko waxuma benn baat waxal fukkam ma wax ko léegi yonent bi ne ko laa ilaaha illallaah Muhammad rasulullah mu ne ko yow Muhammad foo ñu jëmee ñu ñuy jaamu ñetti téeméer ak yàlla ba léegi suñ soxla yi fajagut nga bëgg ñu bàyyi ko jaamu benn yàlla ba guddi jotee rek Abu Taalib ne ko sa mbokk yi nag wax dëgg yàlla bëgg nañoo juboo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di jooy sallallahu alayhi wa sallam suñ ma suñ jëloon bi teg ci sama loxo ndijoor mu di ma lakk ñu jël weer wi teg ci sama loxo càmmooñ mu di ma lakk ngir ma bàyyi lii may wax ñu ma ko bàyyi ndax yàlla ma ko digal Abu Taalib ne ko fastabi ma tumaru mu ne ko xóoralal li sa borom wax mu ne ko wallaahi lan yasulu ilayka bi jamiim hatta wasala min turaabi dafina mu ne ko wallaahi duñu agsi ci yow mukk loolu ma nga gànnaayoo suuf nga gànnaayoo samay doom bu loolu amee nag sa alayhi wa sallam yonent bi nag saxaaba yi daal di tawat juróom-ñaar ñi nga xam ne ñoo njëkk a ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa mooy Amar Bilal ak Shoybu ak sumayatu ñii leen Abu Jahl def kenn mësu koo gis ci àddina yu bëri ak alalam moo tax kenn ñemew ko Ali ibn Abi Talib moom jàmbaar la boo xam ne wànnentu la ku mu bàyyi say bët nga bàyyi yësam waaye ñi nga xam ne ñoo gën a néew doole Ammaar ak Bilaal ak Shuayb ak Sumayatu ñii li leen Abu Jahl warul ci àddina kenn mosu ko gis Abu Ammaar nee na Abu Jahl na ko safara boo xam ne daf ko ci at ba safara su bàyyee ko ci moom moo fay gérek gérés bu bàyyee ko ci moom moo safara si Yaasir baayam Abu Jahl dafa takk gëlëm ci benn tànk bi takk beneen gënam ci beneen tànk bi dàq bii mu jëm fële mu dàq bee mu jëm fële noonu la dee su moyetu mooy jigéen ji nga xam ne moom lañ njëkk tuur tuur deretam ci lislaam moom Abu Jahl def na ko xam naa ñiy bañ yonent bañ yonent bi yéen du ngeen ci bokk ngir taaram bi waaye yow da ko wute daal di jël xeej rek jëm ko ci péem ba mu génn ci ndigg li noonu la faatoo ba loolu amee rek saxaaba yi daal di tawat nag ñu ne ah yonent bi képp ku ñu ngi koy lor di lakk malaanaam di toj këram ñun lu ñu def yonent ne leen na ngeen ñu ñu ñi nga xam ne dañ daan gëm seen borom mu ne daan teg nit di ko fees di ko fees ba muy ba tàggale deram te du bàyyi diinam daan teg nit di ko si di ko si ba mu dee te du tax mu génn ci diinam waaye mbir mii gëñ naa ci yàlla ne mbir mii dana mat mu ne nit dana jóge fii Màkka dem ba sanaawul Yaman te du ragal dara lu mooy yàlla wala boog till boobu ci ay gàttam mu ne waaye mbir mi dana mat ba loolu amee nag mu ne gannaaw mënu leen a muñ looy da ngeen dem Habasha mooy Éthiopie buura nga fa xam ne du te du nangu ko tooñ ci moom na ngeen dem foofu ba loolu amee juróom-ñett fukki saaba ci saaba yonent bi demoon nañ fa Seydina Ousmane ak Roqeetu bokk nañ fa jaafara leen jiite bañ demee ba Habasha làqatu foofu Quraysh daal di yónni ñaar ñi gën a ñaw ci Quraysh amaaratul walid ak amru ibn aasi ni leen jox leen ay yëbbal ay der yu li ay njeganaay ay cadeau yu bëri ne leen suñ demee ñu jox ko buuri najaas yi pour mu jébal leen saxaaba yi ñu rey leen ba loolu amee rek najaas yi daal ñëw nag indi ay cadeau moo amaaratul walid ak amru ibn aasi ba ñëwee ñi indi seen i nag jox ko buur bi bañ ko joxee buur bi nag daal ne ko ñun de dañoo am lu ñuy tawat dafa am ay nit ñu aw nit ñoo xam ne ñu nga feeñ ci màkka yàq nañ màkka te saara nañ suñ mbooloo mi indi nañ dina ñu xamut yàq nañ màkka yaxeet ñëw nañ ci sa dëkk bi nag ñu ngi lay lentalu pour nga moytu leen wala nga jébbal ñu leen ñu leen rek ray leen moo gën ñu yàq sa dëkk bi bu loolu amee rek yoonoon na jaasi ne wal ma saaba yoonoon ci yi nga xam ne ñoo nekk fii ñoo leen ñu ñëw bañ ñëwee mu ne leen waaw yéen lu tax nuyu leen ma ñu nuyoo ne asalaamaaleykum ndaje ama amul amaaratul wala yi ne ko gis nga duñ la nuyu mukk nu la nit ñi di nuyoo mu ne leen waaw yéen lu tax nuyu leen ma ñu ne ko nuyu dañ la nuyu bi nga xam ne moom la ñuy nuyoo suñu yonent bi mooy nuyoo waa aljanna wasalaamualeykum mu ne leen noonu ngeen di nuyoo seen yonent ñu ne ko waaw mu ne kon man kontaan naa ci loolu mu ne waaw yéen lan mooy seen mbir ñu ne ko ñun tey dañoo nekkoon ci màkka di jaamu xëram di mooy yàlla di def xeeti mooy yàlla ku nekk di njaaloo di dëngee waajur ba yàlla yónni ñu yónni ci ñun waajoo xam ne ñëw na jubal ñu wan ñu ñu ñuy jaamu benn yàlla rek bàyyi bàyyi jaamu xëram di di rafetal kàndoo di di rafetal ànd ak waajur di jubal suñ diine di wattu naan sàngara ak njaalo mu ne leen waaw seen yonent bi lu lu mu leen di digal mu ne ko daf ñuy digal ñi jaamu yàlla ak koo bokkaale mu ne leen ndax seen yonent bi dana leen laaj alal ñu ne ko waaw danañu laaj alal mu ne su ko jëlee nu mu koy def mu ne ko daf koy jox ñi nga xam ne ay miskin lañ yu néew doole mu ne leen seen yonent bi lu mu wax ci Isa mu ne ko dafa wax ne Isa jaamab yàlla yonent bu yàlla la waliyu yàlla la koo xam ne yàlla moo ko sotti Jibril mu jox ko Mareem mu ne Mareem kii ndeyam nag moom waliyu siddiqatul ba loolu amee rek mu ne ndax seen téere bi yéen nga amee dara ci seen téere bi jaafar ne ko waaw jàngal ñu Jaafar daal di jàng suratul Mariam Najaasi yi di jooye jooye borom xoñam génn mu daal di génnee benn bant sekkee ñi ko kaay ne gis ngeen wallahi seen yonent bi li mu wax ak la Isa waxoon amul différence lu toll ni bant bi mu ne gees Amru ibnu Asiya ak Amaaratu Walid ne leen ci ñi ngeen may xiir ci waliyu yàlla yi ngeen mooy xiir mu ne leen xelante woon su ma daloon ci waliyu yàlla yi xaw ma fu ma koy wax mu ne ñii de su fekkee ne duñ ay waliw yàlla amul ay waliw ci kaw suuf mu ne dox leen ci sama suuf nu leen neexee jaamu leen seen borom nu mu leen neexee kenn du leen jaaru ci fii ci suufi Habasha ba loolu amee rek sallallahu alayhi wa sallam fekk Aboubacar Siddiq moom itamit mu ngi ci loolu waa Màkka bund xataal nañ ko moom dafay génn loolu amee rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko muñal suñu su may gàddaay maag yow ñooy ànd ba loolu amee rek bés ñëw Quraysh dajee ci daaru Nadwa mooy assemblée. mi nga xam ne mooy Xusey ibnu Kilaab moom la njëkk def ci Màkka ñi dajee fa na nag léegi dañuy pexeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ne nañ ko caw cawe ni jenn raay ñi ne nañ ko rey nañ ko dàq takk ko ci fas dàq ko mu dem ba loolu amee rek alquran daal di ko wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yamkuru bika alladhiina kafaru liyuthbituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuuka wa yamkuruuna waa yamkurullaahu wallaahu khayrul maakiriin ñu ngi lay a pexeel di la jéem a rëkk rëkk waay di la jéem a dàqee ci màkka yàlla mi ngi pexe moom mi nga xam ne mooy pexe way yàlla wax ko bi nag sallallahu alayhi wa rek ca guddi rek bi jàng yaasin ba ci yëpp suru na leen ko ñi nelawa nelawa nelaw ba ba yandoor mu ànd ak Abubakar Siddiq ak ama Amar ak Abdoulaye ibnu moom mooy dégg bi leen doon wan yooni Medina bi sallallahu alayhi bañ demee ci guddi lëndëm gi rek ñu jaar ci xajjun ci lëndëm gi ñëw ba ci kuntum xuntuma jabalu saw dugg dugg foofu ba yonentu fekk na yonentu bi sallallahu alayhi mu sallam mi ngi sonn Aboubacar Siddiq mu ngi teglante ñaari manto mu jël benn manto bi fekk xunt bi dafa bëri ay pax muy sakk pax mi ak yére mi dagg di ko sakk ba mu des benn pax mu teg ci tànkam nag sallallahu alayhi wa dina yonentu bi duggal ci dugg rek fekk mi ngi sonn mu dugg rek tëdd nelaw ba loolu amee rek jaan màtt Aboubacar Siddiq yonent yëgul lu mooy rongañi Aboubacar Siddiq dal ci kawam tàng mu eew ne ko Aboubacar lan la Aboubacar ne ko jaanama màtt yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di ko raay rek mu daal di lugg fi ñuy waxee rek mu Quraysh ñëw ba ñëwee ñuy topp tànk yi ñoom dañuy xàmmee tànk yi bii tànk tànk Aboubacar Siddiq bii tànk tànk yonent bi la ba ci xunt mi ñu ne mu ci bax mi fekk jorga ñëw na lëndee bax mi picc ñëw na tàgg foofu nen fa garab sax na fa ñu ne a xunt mi ñu ne ah fii ñi ne garab gii kay su fi duggoon lim gi jorjor ñi dana tàgg picc mi dana tàgg yi dana toj nen yi dana toj mu ne garab si waxuma bu fi waxuma yonentu waaye maamam Abdou Malik Moutalib sax ba mu fi sax maamam ju doogul waxuma moom ba loolu amee rek sallallahu alayhi wa sallam fekk si Siddiq a ngi jaaxle nag ne ñii suñuy sëgg rek ñu gis yonent na ko déedéet duñu gis alquran daal di wàcc ci pax ma nag ne saaniya isnayni isuma fil xaari is yaqulu li saaxbi laa taxzan inna allaha maana ñaar ñi nga xam ne yàlla moo leen ñetteel mu ne ko kenn duñu laal lu yàlla ñun ñooy ñaar ñaar ñaar aji ñaareel ñaar ñi nga xam ne yàlla moo ñu ñetteel muy wax saxaabaam bi ne ko bu ragal inna allaha maana yàlla nga ànd ak yow Abubakar Siddiq du dañ di ragal di ragal ba yonent ne ko xoolal mu xool gis benn tali boo xam ne dafa mel ni autoroute mu gis géej gu taxaw gis bato ne gis nga suñu ñu bëggee lottal ñu jaar ci tali bii rek géej gee rek dugg ci bato bi dem yépp ngir dalal xel xeli Abubakar Siddiq radiyallahu anhu bu loolu amee rek sallallahu alayhi wa sallam di wax ne yonent bi taxañ na suuf jëm asamaan a nga xam ne noonu la taxañee suuf jëm ca rañaan moo jëm Medina ba loolu amee rek yonent bi sallallahu alayhi picc yi ak jorgañ ak ñëpp di ko lënd di ko tàggal di ko nëbbu ñoom waa Quraysh ñi di ko bañ ba loolu amee rek sallallahu alayhi wa sallam ñoom Quraysh ñoo gën a bañ yonent bi sallallahu alayhi waaye mbëtt yi ak till yi ak kewel yi sax bëgg nañ ko ñoom te ñoom xamuñ ko amuñ chance li nga xam ne mooy mbëtt ma benn arab yi boo xam ne dafa rëbboon ba ab mbëtt rendi ko doxag moom suba fa ngoon ba mbëtt mi wow mu dajeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw yonent bi ne ko yow arab yi bi doo jébbalu mu ne ko man ma jébbalu ci yow daal di tëral mbëtt mi ne ko mbëtt mi su jébbaloo rek ma jébbalu yonent bi ne ko su mbëtt mi jébbaloo nag mu ne ko su mbëtt mi jébbaloo ma jébbaloo waaye ay yonent bi ne ko su ma koy su jébbaloo da nga jébbalu yi ne waaw yonent oo oh mbëtt mi ne yaa zabu oo naa la yow mbëtt mi bëtt bi ne ko la béykat yaa tey ne man waa fal mu ne ko uyu naa la yow mi nga xam ne yaay ku taalal pencam yàlla yonent ne ko man maay kan mu ne ko yaay Muhammad ibn Abdillah yaay ci mindee bi araba ba yéemu lool ne ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah ba amee mu ne waaye man maa yonentu dama ñàkk mbëtt mii mooy sama reer su ma demee moom laa rëppoon ca suba moom laay reeree aw ma leneen lu ma reeree yonent bi ne sahaaba yi may leen ko sahaaba yi di ko mañ di ko tegal di ko jóral mu ne gis ngeen li ngeen may dajaleel nii soxlawuma ci dara man de dama digale woon ak ay pour ñu ñëw rey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ñooñu yëguñ li xew dama bàyyi ba ma dem ay ñooñu bañ génn ci lu nekk sahaaba yi sa ba nga xamee ne loolu am na bàyyi ne moo gënoon a bañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye léegi moo ko gën a bëgg ñu ne mbët till itam benn waaye dafay sàmm gàttam till ga ñëw na ci ciix ab gàtt benn gàtt sàmm ba dàqee ko ba nangu gàtt bi ci ci till gi till ga ne ko ku may aaye gàtt yi bés boo xamee ne Israafil wal wal na buftu bi ba ñëpp dee wacc fi jur gi su keroogee su ma jàppee gàtt daana ko ma koy aaye mu ne ko sàmm ba ne ko ojooba till guy wax loolu yéeme na di till gi ne ko li gën a yéeme kay du loolu li gën a yéeme mooy seen nga ñaari montagne yële ab yonent ab yàllaa nga fa yow te jëm ci aljanna yow yaa ngi fii di sàmm say gàtt yëgoo sax ne kooku am na sallallahu alayhi wa sallam yonent bi def na ay kéemtaan yoo xam ne yi ci kaw suuf la ko def yii ci kaw asamaan li nga xam ne moo gën a yéeme ci lim gën a def Quraysh si waxoon nañ ne ko duñ la gëm mukk lu mooy nga jant bare nga wàccee ko ba mu daanu ci jëbal yi amee Qubays soo deful loolu rek duñ la gëm bu ne su amee da ngeen gëm ñu ne waaw yonentu oo Seydina Ali ak Fatimata Zahra ak Xasan ak Hussein di ñaan di ñaan di ñaan ba bi ne taj daanu ci jabali abee xubaysa toj ñaari toj toj daanu suuf ba mu ñëwee mu ne lu ngeen wax ci lii ñu ne ko lii sixrun mustamirun la ñu ne ko ñabal ñabar lu mate ñu ne waaye duñ ko mukk lu mooy amul ñu jógee ca bitim réew ñëw na gis nañ liñ gis ñun suñ ko defee rek ñun danañ gëm ca suba rek kawar bu ñëw rek ne gis nañ démb kéemtaan gis nañ weer toj ñaari toj toj ba daanu ci jabari abal xubaysa ñi a sexoon mustamirun moom la alquran di wax iqtarabati saati wan shaqal qamar wa yaraw ayatan yuradun yaqulu sexrun mustamir waa xamee ne gis nañ kéemtaan ñi ne lii sexrun mustamirun la ba loolu amee rek sallallahu alayhi wa sallam yonent bi delloo si na weer woo xam ne jant boo xam ne dafa soowoon yonent ci lupp Seydina Ali daal di nelaw fekk tàkkusaan paase na yonentu teewu ne ali ali ndax julli nga tàkkusaan seydna ali ne ko man jullee tàkkusaan yonent bi sallallahu alayhi wasallam jant bi ñaan jant bi delloo si fa nga jógee woon jant bi ne bu xeet ñëw ba ci muxtaaram tàkkusaan ali julli tàkkusaan mu delluwaat yonent bi sallallahu alayhi wasallam def na moojisaat yoo xam ne yii ci middee fi kaw la ko def yii ci middee fi suuf la ko def am na banta tàndarma boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi ci la daan taxaw di xutba bu demee ba ay jëmmi jamono ñi soppi ko def beneen bant doxal bant bi teg ko foofu yonentu taxaw ci bu bees bi di xutba ñi dégg bant bi di jooy yi kër ñëpp di ko dégg yonentu laal koog loxoom mu doog a noppi sallallahu alayhi wa sallam ngir bëgg yonentu taxaw ci kawam façon kéemtaan bu nekk mujjizaat bu nekk yonentu def na ko waa Màkka tax rek lu rek sallallahu alayhi ba loolu amee rek yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak Abubakar Siddiq ñi dem ba ci barke ñi daal di fa ñëw ba ñëwee ñi ne ko yow doo ganay la gan ñi ne ko ñu de amuñ dara amuñ dara loolu gàtt bi nga xam ne dafa lompoñ ba mënta wati moom rek moo fi nekk bu loolu amee rek mu ne ko an jëkkër mu ne sama jëkkër dafa dem uti luñ lekk yonent bi ne ko sallallahu alayhi wa sallam daal di raay raay gàtt bi rek gàtt bi daal di suura suura suur ba ba ba suur mu laay mu raay bàtt bi rek mu génnee meew mu daal di indi ndab yépp tànk ndab yi nekk ci kër ga yëpp ba fees mu daal di tànk jox amaar jox tànkaat beneen këll jox Abdoulaye ibn Urayqi tànk beneen këll jox Aboubacar Siddiq daal di tànk naan moom ñu ne saaxir xaw ma aaxirum shurban mu ne kuy naandal aw nit yow yaa war a mujjee naan daal di dëdd rek dem Medina boo jëkkër yi umuma ba ñëwee ne lii fan la jógee mu ne ko benn waaye moo fi ñëw baat gàtt bii nga xam ne mëntar wati ci la génnee meew mi yëpp daal di dem Medina jox ñim naan yëpp dem Medina su mu maa ba jëkkëram ne ko kooku mooy yonent bi nga xam ne moom la waa Màkka génnee nañ dem fekk ko na jébbalu ci moom ba loolu amee rek sallallahu alayhi wa sallam daal di aw yooni Medina nag di dem fekk waa bani xeelate ñi nga xam ne ñooy leen saar bés bu set rek ñuy takk seen yére seen takk seen yére xale gàddu seen jaase di gàtt lu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suba ba ngoon ñu dellu siwaat di ko def ba fukkee li bés ba nag ci lañu benn yow daal di yegg ci garabu seen ñeenti xewar yu ñëw mu ne ba ni xaylate yéen ñi nga xam ne yéen a doon seen seen waa ji ma nga ñëw ba loolu amee rek waa Medina moom ñëpp génn di gàttanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko tëggal di ko tëggal ay tabala ñuy woy naan talaal badru alayna min sariyaati wadaay wajaba shukru alayna mada laayi daay ayyuhal mabuusu fiina jita bil amril mutaay jita sharaftal madina marhaban yaa xayra daay yi di ko woyal waa Medina moom dañoo kontaan di ko moo tax yonent bi sallallahu alayhi dëkk bu nekk jaase laa ko ubbee lu mooy Medina mu yàlla su fekkee ne am na fu muy dëkk Medina lay dëkk mu yàlla dafay tëccu di dem Medina nga xam ne noonu la jaan di tëccoo di dellu dëkk bu ne jaase laa ko gusee ubbee waaye Medina moom alquran rek moo ko ubbi sallallahu alayhi wa sallam ba mu ñëwee rek ñi di ko xëccoo. mu ñëw ba ci Bani Awf fi nga xam ne foofu lañ def masjidu Quba mu daal di sanc foofu sanc fa am fa ñaari semaine gannaaw bi mu ne du fii lañ ma waxoon mu continuer ànd ak albaaw rek ñi di ko xëcc di ko xëcc mu ne bàyyi leen albaaw ak nasam moom ci ndigal lay woy ba loolu amee rek sallallahu alayhi wa di cal di cal di cal ba agsi si mu ñëwee ba ba Medina rek boo nga xam ne foofu mooy baabu Jibril fii jàkka yonent bi nekk sallallahu alayhi mu daal di rek sukk sukk ba mu yàgg rek mu jóg ba mu jógee dox dox dox ba ci kanam mu daal di sukkaat beneen yoon ba mu sukkee daal muur rek daal jooy ñu ne fa mu njëkkoon a sukk foofu mooy baabu jibril mooy jàkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye boobu xam ne su àddina foofu lañ ko xalaat denc loolu tax ba amee rek yonent bi sallallahu nag nekk ci Medina ba mu fa amee ñaari at nag ci la ko yàlla digal nag ne ko nag jihaad usina lilladina yuqaatiluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim la qadir ba nga xamee ne ña nga woon ca màkka fukki at ak ñett ca màkka ñi di ko lor yàlla ne ko muñal rek ba ba mu ñëw Medina ba mu am fukki at ci màkka ci yàlla wax nag ne léegi nag ku la tooñ sañ ngaa fay ñuy waajal gàdd bi nag ba mu amee ñaari at rek ci la ko ci la waa màkka ñëw ñëw di xare Badar ci lañ xare xare Badar xare badar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy génn ci màkka dafa waxoon ne yow yàlla yàlla nga sànni ay ati bekkoor ci Quraysh yoo xam ne naati bekkoor Yuusufa noonu lay mel yàlla nga leen xiir ab xiif yoo xam ne dañuy xiif a xiif a xiif bay bëgg dee moo tax ñu xiif ba lekk seeni xaj yi lekk seen wete yi nit dafay taxaw ñi jaakaar ne saxaar moo dox sa digganteeg morom ngir xiif ñu ne lii nag métti na ñu daal di dajale seen alal yépp jox ko Abu Sufyaan ne ko mu dem njëggi tereti ba laa amee rek Abu Sufyaan dem di tereti dem di njëggi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek yàlla wan ko ko ñu yàlla di ko wax ci yi ne ihda taifatayni annaha lakum mu ne ko ñaari kuré yi yàlla jox na la ci benn Abu Jahl a ngay takk xare ju Abu Sufyaan a ngay takk xare di jëm si Abu Sufyaan a ngay njëggi di jógee Quraysh Abu Jahl la ngay takk xare di jóge Màkka di ñëw di la songu si mu ne ko ñaari mbooloo yooyu yàlla jox na la ci benn waaye sahaaba yi nag ñoom ñoo doon wax naan wa tawadduuna anna xayra zaati shawkati takunu lakum ñoom bëgguñu woon a jàkkaarloo xare bi ñoom njëg mi rek lañ bëggoon a dajeel njëkk yàlla bëggul loolu moom la yàlla wax ci alquran yuridullahu an yuhiqqa alxaqa bi kalimaatihi wa yaqta'a daabira alkafirina boobu yàlla dafa bëggoon dëgg gotti baatin moo tax njëkk ma raw na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen sama borom moo ma digal ne ñaari mbooloo yi dana ma ci jox benn njëkk ma raw na kon nag wallu wi moo ci des wallu wi nag mooy junneeg xale boo xam ne ñi ngi ànd ak seen i sëfukaay ànd ak seen i tegukaay ànd ak seen i am seeni i dund loo xam ne mën na dundab weer mën na dundab ñaari weer yoo xam ne ñoo ñëw song si yonent bi sallallahu alayhi yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam moom kuréelam bi ñetti téeméeri nit ak fukk ak ñett lañ yoo xam ne amuñ ci jaase lu mooy juróom-ñaari jaase amuñ ci fas lu mooy ñaari fas fas yi aliya ak miqdaad Quraysh nag ba loolu amee rek sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne lu ngeen ma digal lu ngeen wax Seydina Omar daal di jóg ne ko loo ñuy wax rek loolu la def ñun duñ wax la bari Israël waxoon Moussa ñoom dañoo waxoon Moussa ne ko isabanta wa rabbika fa qaatilaa innaa hunaa qaa'iduun demal xeex ak sa borom yow yaa ak sa borom ngeen xeex ñun ñu ngi nii taxaw ñun duñ la wax loolu ñun dañ ne la demal xeex ak sa borom ñu ngi demal xeex ñu ak yow tamit di xeex ba loolu amee rek yonent lu ngeen wax lan saar ne yonent gi wax luñ wax Omar wax na mu ne luñ wax xanaa ñun lay wax Saad ibn Ubaada daal di jóg ne ko loo ñu digal rek loolu lañ def ñun duñ mooy sa ndigal mukk lépp loo ñu wax rek loolu la ñuy def. waaw loolu amee rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di taxaw ci gàngunaayam di ñaan di ñaan ne yow yàlla gis nga mbooloo mii suñ leen rayee rek suñ leen faagaagalee rek dootoo am ku la jaamoo ci kaw suuf yow yàlla tigoon nga ma ndimbal indi ko yow yàlla sa saaba yi ñi ngi xiif amuñ luñ lekk ñi ngi fànnaañu di dox ak tànk amuñ amuñu ay dàll ñuy sol waral leen dimbale leen ba loolu amee rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ñaan di ñaan di ñaan ba Abubakar Siddiq ne ko li ngay lettalu sa borom doy na sa borom du la seddaan dana la dimbale mu ne ko wallaay wax nga dëgg mu ne ko Jibril la nga nële mu nga ànd ak ñaari junne Israafil la nga ne mu nga ànd ak junne malakul mawtu kii rey mu nga ànd ak junne juróomi junne yi malaaka ñoom la yàlla ebal ñu ñëw warlu si Quraysh warlu si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi ne woy Quraysh moom Jibril rek su ne uf rek bi daal di tool buñ taay taal ko booy ko boyal ko waxuma nag juróom-ñaari junne juróomi junne malaaka yoo xam ne ñëw nañ ci si yonent bi sallallahu alayhi ba loolu amee rek sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla digoon na ma ndimbal dana ko indi ba loolu amee rek Quraysh ñëw yonent di laajte rek ne Quraysh ñëw nañ ne waaw mu ne Utbatu ñëw na ñu ne Utbatu ñëw na mu ne Shaybatu nag ñu ne ko Shaybatu ñëw na mu ne Wali ñu ne ko Wali ñëw na Abu Ubayda te ñëw na ñu ne ko Abu Ubayda ñëw na mu ne haadihi makkatu ramakum bi afraadika biha mu ne màkka sànni na leen doog itam yëpp màkka yëpp ñëw nañu ngir xaraseeg yonent yéen sallallahu alayhi wa sallam wala xamee ne loolu am na nag sallallahu alayhi wa sallam yonent julli fekk am na kenn ci kuréel kuréel yi yéefeer yi ñëw fekk yonent mu ngi julli saxaaba yaa ngi toog ñu ne ko góor xare bi jógee màkka bëri nañ waa ji sàmm ba ne waaw bëri ñu dóor ko ba mu bëgg a dee mu ne waaw mu ne bëriwuñ ñu ne ko waxal nag bëri nañ wala bëriwuñ mu ne bëri nañ ñu dóor ko mu ne bëriwuñ ñu ne du sëlmal ne ko li am mooy yaa ngi laaj waa ji su la waxee dëgg nga dóor ko su la waxee fen nga bàyyi ko li am mooy bëri nañ ne su laaj ko ne ko ñaata ngeen ni rëndee seen ndawal ñu ne ko bés bu set juróom fukki gëlëm la ñuy rëndee yonentu ne kon junne lañu wala junne bi du ko manqué juróom fukk bëriwut ba nga xamee am na rek ñi daal di ñëw Utbatu ak Shaybatu ak Wali ibnu Utbata ñoom ñoo jiite woon xare bi ba ñëwee ñu ne fekk am na ay xale yoo xam ne ci lan saar ibnu Afra lañ leen wax doomi Afra yi ñu ñëw gàttalu leen ñun ñooy xeex ak yéen ñu ne ko ñun de soxlawuñ leen ñun suñ doomi baay yéen la ñuy seet ñoom lañ bëgg a xeexal yonent moo gën di gor yonent ne ana Hamzatu ibnu Abdul Muttalib Hamzatu ne ko maa ngi mu ne ko ana Ali ibnu Abi Talib ibnu Abdul Muttalib Ali ne ko maa mu ne ko ana Abu Baydata ibnu Xaaris ibnu Abdul Mutalib Abu ko maa ngi mu ne ko ñooñu seeni nawle yéen la ñuy wax ba loolu amee rek Aliyu nag xool xamutu rek moom rey na waajam ba def ko ñetti till Xamsatu noonu Abu Baydata ibnu xaalis nag moom boobu magee na jaaseem ak jaasi noonoom daal di utee rek ngi dagg tànkam bi ñu daal di ko fopp indi ko teg ci kanam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngay wax nag naan su Abu Taalib dundoon tay dana xam ne bayti boobu mu waxoon maa ko ci gën a yeey ba nga xamee ne Quraysh dem nañ ne Abu Taalib na leen jébbal yonent ñu rey ko Abu Taalib daf ne leen wa nuslimu xataa nu sarra xawlawo wa nasala abnaayina wal xalaay mu bu lu dul ma dee ma xare ngeen bañ rey ma ma ngenaayoo sama doom ci laay doom ba jébbal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abu ne loolu Abu Taalib moo ko wax waaye bayti boobu maa ko gën a yelloo man maa ko def ba loolu amee rek sallallahu alayhi wa ñi daal di jàpp ci Quraysh jàpp ci juróom-ñaar fukk ci sahaaba yoo xam ne yonentu ne rek gëneewu ci ñoom kenn gëneewu leen dara lu doon yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam yonentu bi ci ci gën doy seede mooy Abbas ibn moom mi nga xam ne bàyyi ci yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam rek sallallahu alayhi ñi daal di daje rek ñeneen ñu ñu def ñu yeew leen ci ab xuntu ñu fanaan ba bët set yonent bi ne nelaw ma biig ngir sama binni bàyyi abu abbas mu ne li xew mooy nañ wax ñii lan moo yàlla ci yéeféer yu xasaw yi omar omar bu xataab ne ko ñii daal ñooy bopp kéeféer ñii daal fekk ñi ci kaw suuf kenn dootu la gëm mu ne ñii suñ leen rayee rek kéeféer jeex ku ci bokk ci sama ci sama giir rek jox ma ma rey ku bokk ci giiram am ali joxal ali mu rey Abu Bakar moom gannaaw xolam dafa nooy moom ku bokk ci giiram rek na ma jox ma ba loolu amee rek yonentu ne Aboubacar Siddiq mu ne Aboubacar Siddiq yow loo wax Aboubacar ne ko <coughs> Aboubacar ne ñii daal bàyyi leen rek nga laaj leen ñu jox ñu jox dee ñi bàyyi leen ñi dem mën naa am suñ gëmut dana am dana am ñu gerte seen ngir ñoo xam ne danañ gëm te ñii ay mbokk rek nañ nañ leen laaj nañ leen laaj dee ñi joxe dem ba loolu amee rek yonent bi sallallahu alayhi wa dugg ci biir. saxaaba yi ñii ne li Aboubacar wax lay def ñii ne lu Omar wax loolu lay def ba loolu amee rek yonentu génn ne tànn na li Aboubacar wax waaye kenn du fi jógee lu mu joxe ñeent fukki li ku bokk ci Bani Hashim nag moom juróom-ñeent fukki li bi door loolu lay joxe ba loolu amee rek ñiy joxe ay jar-jar ba mu des Abbas yonentu ne ko yow juróom-ñeent li bi door ngay joxe ne ko yow da ngaa bëgg sa bàyyi di ci Makka moo tax barki démb biñ ma jàppee ci Badar nangu nañ ci man ñaar téeméeri li yonent ne ko ñaar téeméeri libidoor ñoo doon añalee éefari yi pour ñu ñëw xeex ak man man nga bëgg ma fay la ko mu ne ko dangaa bëgg sa bàyyi yelwaan yonent ko nooy yelwaanee keroog fa ngay ñëw wax nga sa jabar umu fadlin ne ko maa ngi dem urus waa ngi nii su ma ñëwee baax na ñëwut yàgg say doom ngeen jël ko mu ne ko nooy yelwaanee te nga jox sa jabar umu fadlin urus ne ko soo ñëwut mu jël ko mu ne ko loolu ku la ko wax te loolu ca màkk la te kenn jógewu fa ñëw mu ne ko yàlla moo ma ko wax mu ne ko ashhadu laa ilaaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ba loolu amee rek sallallahu yàlla di wax nag wàcce alquran wax ne maa kaana li nabiyyin an yakuuna lahu asraa yuskina fil ardi yuriidu hayaata dunya wa laa yuriidu aaxirata mu ne mu ne waruñu war a jot benn dee loolu ñi mokkal yéeféer bañ jeex ci kaw suuf waaw wax waa xamee ne loolu Aboubacar Siddiq ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toog di jooy Omar ñëw ba Omar ñëwee ne lu xew lu ngeen di jooy ñu ne ko li nga pexe mi nga waxoon loolu la yàlla bëgg moo tax suy buggal wàccoon tey yow rek yaay mucc ba loolu amee rek Aboubacar ndekee yéefar yi ne duñ doyal Abou Jaal rey nañ ko ca Badar waaye abu Soufiane nag daal di takk xare boo xam ne junne lañ fukki junne yi nit yoo xam ne dajale na ay yoo xam ne. ñeenti junne yépp moo leen fayal xaalisam moom la bàyyi doon wax ne ñooñ baatil li ñu àttan ci seen baatil ñooñ dëgg dëgg dëgg àttanuñ ko seen dëgg ba loolu amee rek Abu Sufyaan daal di takk xare boo xam ne mooy xare Uhud ñëw nañ ba wër Medina ba wër Uhud fekk yonent sallallahu alayhi ne lu ngeen xam ci xare bi Abu Sufyaan naafeq bi Abdullah ibn Ubay ibn Salul moom ne ko ñun waa Medina mi nuñ génn di xare ji ñun xare dañ koy nekk suñ biir néeg yi su ñëwee rek jigéen ñi gàddu seen i yet ak seen kuur di ñu dimbale loolu la ñu waaye génn di xare ji duñ ko def benn xale ne ko loolu duñ ko def ñun ñi nga xam ne ñoo ne ci dëgg Quraysh mi nga xam ne duñ dara ñu jógee fa ñëw ba agsi ci ñun ba tiim ñu ñu toog di leen xaar loolu daal loolu daal jaaduwul ba loolu amee rek yonent bi sallallahu alayhi daal di dugg rek sol yére xareem génn ba génnee nag sallallahu alayhi xale bi ne ko man de maa ngi jéggalu man mi nga xam ne maa ngi digal yonent boo xam ne ci ci yàlla mu yàlla ci moom lay wàccee alquran Aboubacar ne fi waxut Omar ne fi waxut man may wax yonent ne li am daal mooy am yonentu su solee yére xareem rek moom dootu tëpp foog mu xare ba loolu amee rek yonentu na léegi nañ génn bañ génnee fekk saxaaba yonent yi ñoom junne lañ junne boo xam ne ñetti téeméer yëpp ay naafeq lañ bañ génnee ba ci digg yoon bi rek abu ab Abdoulaye ibn Ubay naafeq ne naafeq yi kaay leen topp leen mu ñu dëpp ñun xarewul yonentu ne du ngeen ñu gungee su ngeen xarewul sax ngeen yokk ñu mbooloo ñu ne ko ñun xarewul ba loolu amee rek yonentu daal di dem ñett juróom-ñaar téeméer lañ ndax junne lañ woon ñetti téeméer yëpp naafeq lañ yonentu daal di génn dem Uhud bañ demee mu jël ñi nga xam ne ñoo yore fett yi Abdoulaye ibnu Zubayr moo leen jiite mu ne leen yonentu daal di tëral stratégie ne ñi nga xam ne yéen ay ñoo ñoo ànd ak Abdoulaye ibnu Zubayr toll ci wala wala toll juróom fukki nit da taxaw ci montagne Uhud bi bu leen fa jógee suñ ñi lottalee bu leen ñi wallu ñu tamit suñ leen lottalee bu leen jógee toog leen foofu nekk ma ba ma ñëw ndeke loolu mooy stratégie guerre bi ñu defee loolu rek Quraysh ku ñëw rek ñi fett lañ ba juróom-ñaar fukk ci ñoom dee ba nga xamee ne seen raaya ji watt na ba fukk ak juróom ba seen raaya bi daanu ci suuf moo jóg ñëw jël ko yëkkati ko ñu Quraysh ne yi ne toskare nañ ba nga xamee ne seen raaya ji mu judd mooy ci loxo jigéen ba loolu amee rek saxaaba yi nag ne ah xare bi jeex na ñi nga xam ne yonentu waxoon na leen ne buñ jógee foofu ñoom ñi bari jógee foofu nag ne dañuy wuti màng bañ demee rek Abdoulaye ibnu Zubayr moom neen moom yonente ko wax ne na ko xaar fii moom ndigal lay xaar du fa jóg Xaalid ibnu Walid boobu jébbaloogul moom moo jaaree ca gannaaw rek ñëw bu ko àllaaxira ci saa si mu daal di ci loolu rek ñi daal di daal ci miir boobu rek fekk fa saxaaba yi ray ci ñoom juróom-ñaar fukk ak juróom juróom-ñaar fukk yi ray Hamzatu ci la bokk muy bàyyi yonentu bi sallallahu alayhi wa ci boppam ñi xaañ ko xaañ ko ci ja damu sellam deret ji gann ko mu daanu ci pax Quraysh yi lu juróom-ñaar fukk ci Quraysh gàddu seeni jaase ñëw ne dañuy dañuy rey yonentu bi sallallahu alayhi wa ñëpp a taw ci saaba yi ba mu des Talha doon Ubaydullah moom moo tëdd ci kaw yonentu jaase bu di caw rek mu aw ko ak loxoom di jaase buñ caw rek mu waaw ko aw loxoom Quraysh ne yonentu ne sallallahu alayhi wa sallam ne wajabat lahu wajabat lahu ñi ne loolu mooy lan mu ne garanti na ko aljana ñi ne am yonentu moom taxu koo yomb lool ba loolu amee rek sallallahu alayhi wa sallam naa fekk bi Abdullah ibn Ubay moom daal di delsi ne waxoon naa leen mbiri Mouhamed du mujj fenn rey nañ Mouhamed Mouhamed nee ku ci bëgg a jubóog sa mbokk na ñëw ma jubale leen xamoon naa leen mbiri Mouhamed kan la dul mujj ba loolu amee ne nañ ma yëkkati ci montagne Uhud ba saxaaba yi gis ma ba xam ne deew ma suñ ma gisee rek danañ dellu si amee rek sallallahu alayhi wa sallam mu ne ñu ko ba saxaaba yi ti gis ko ba xam ne yonentu deewul dañoo mel ni kay na ko foofu doomam rek mu seen la kuñ daggoon tànkam sax bu fàtte ne dagg nañ tànkam ñu daal di congaale yow di song boo xam ne kenn mosu koo gis yonentu daal di gàddu jembaraay jël jembaraay muy okk suuf daal di ko téye mu sàbbaal ba ñëpp di dégg mu teg ko ci loxo Aboubacar mu sàbbaal mu teg ko ci loxo Ali mu sàbbaal mu teg ko ci loxo Talxatu mu sàbbaal mu ko ne ko xër chaatir wu ñu ñu tasaaroo daw ba loolu amee rek ñu daw a daw a daw ba mu yàgg ñu ne ñun lu ñuy daw ñun mokkal nañ saxaaba yonent yi ba pare di daw nañ delluwaat xeex ak ñoom ñu daal di bind leetar yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko suba nañ dajee ci aset gi ci débéer gi ba loolu amee yonent bi nag ku àndutoon ak man teemu ci asad gi am raawul asad gi moom ku àndutoon ak man ci Uhud may wala nga ànd ak man ci ci dimanche ji ci dibéer gi ba loolu amee rek yonentu ànd ak ñi àndoon ak xare bi démb yàlla sànni ragal ca xolay Quraysh ñoom ñu ne ñoom ñu daw nangu ñoo ñëw ci ñu ne bi daan ko leetal ne ko nañ def nekk ba déwén ci Badru Sughra ci Badru Sughra ba loolu amee rek ba loolu amee rek ñoom ñëpp ñu di ko waajal ba bés ba ñëw mboolem yi ci àddina bi yëpp dem Badru si xoolaa ñëw di waajal xare bi ba xare bi jotee rek Quraysh ñemew ñoo génn bu loolu amee rek ñu ebal ku ñuy wax nooy ibnu Mas'ud ne ko demal nga fexe ba ak saxaaba yonent yi pour ñu gàntal leen ba bu ñëw xare ñun ndax ñun rus na ñoo wax ne ñemew ñoo xare te wax dëgg yàlla ñun ñemew ñoo xare fi mu nii bu loolu amee rek ñu ne ko soo ñu fexeeloo rek ñu jox la téeméeri gërëm nooy ibnu Mas'ud ñëw fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak saxaaba yi ne leen luy seen mbir ñu ne ko dañuy waajal xare buñ tëkkante woon ak yëf Quraysh yi ci Badru Suxra mu ne leen Quraysh ña nga dajale ay ngànnaay yoo xam ne mën nañ juróom-ñaar fukki junne yi nangam ci ngànnaay yoo xam ne pour faagaagal leen saxaaba yi ne ko xasbunallahu demal wakiil moom la Baye di wax ne baat boobu yàlla waliyu bu mu mës a dimbalee baat boobu la la dimbalee yónnent bu mu mës a dimbalee ci baat boobu la la dimbalee mu ne li topp mooy fan kala bu bi min allah wa tabaw ridwaanallaahi wallaahu zul fadl azim ba loolu amee rek sahaaba yi ba ñëwee rek Quraysh yi ñemewu ñoo génn fekk commerçant yi marchandise mu ñu indi woon ku indi woon sa jaay rek wan wanteer nga ko ñu ñoom ñëpp ñu ñëw xare amul ñu jënd seen i marchandise ku yóbbu woon dërëm rek am nga ci bénéfice lu ëpp loolu ba ñëwee rek sallallahu alayhi wa sallam ñi daal di ñëw nag Quraysh Abu Sufyaan ne du tey mukk dem wax ak bani Qurayshata ak bani Nazir wax ak mboolem xolu yow di ci àddina bi boo dajale ay fukki junne yi nit ak nangam yoo xam ne moo leen fay seen xaalis ne du noppalu mukk mu faagaagal yonente bi sallallahu alayhi wa loolu rek ñu ñëw ba ba ci xare xandax ci lañ ñëw nag fu wër Medina wër ko côté yépp Medina rek gis xare boo xam ne àddina lëmb boo xam ne ñu ñëw wër Medina sallallahu alayhi bu yonente ne waaw lu ngeen xam ci xare bi ñu ne nañ laaj Salmaan Salman bi nga xam ne moom dundoon na juróom-benn fukki at njëkk lislaam dund na njëkk fukk juróom-benn fukki at njëkk après lislaam nga gannaaw bu yonatu feeñee ba loolu amee rek sallallahu alayhi wa sallam Salman ne xare bi de man xaw ma ci dara la dul ngasu lu mel nii suñ ko amaan ñun dañuy gas ay pax rek yoo xam ne dafay toll ñetti fukki xasab suñ ko defee rek Quraysh bu ñëwee duñ mën a jàll pax yi. suñ desee seen fi ñu des daal sax ci sax waaye bi gën a bon ku jàll rek ñi faagaagal la bu ñuy defee loolu lu mat ñaar fukki fan yoo xam ne dañuy fettante rek kenn mënta jàll ku ñuy wax Omar ibn Abdul Wadud mi nga xam ne dafa amoon doole ba nga xam ne juróom ñeen fukki at la am boobu waaye boobu la gën a am doole moom daal moo fitandiku ba dugg ci pax mi ñëw ba fekk saaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi taxaw mu ne leen yéen da ngeen ne kenn ku dee ci yéen aljana la dem ñun ku ci ñun safara la jëm ñu ne ko waaw mu ne ku bëgg dem aljana ci yéen nga ñëw ma yóbbu ko ma yóbbu léegi daal di taxaw sàppe njëkk si ba ci fin ba waxul mu ne kuy wax kenn waxut ali boobu mu ngi ci fukki at ak daal di jóg yonent ne ko amul yu abdu udula mu toogaat ba mu demee ba waxaat wax ji rek ali daal di jóg yonent ne ko amri ibn mu toog ba yoon ali ne ko man daal damay xeex moom yonent daal di diine taglaayam bi daal di ko tegal daal di jël mantoom bi takkal ko ko daal di ko dóor ci dënn jox ko jaaseer bi sul si xaar amee rek ali ne ko man maay xeex ak yow mu ne ko yow kana mu ne ko ali na bi taalib mu ne ko waroon naa doon keneen ku dul yow ndax yow sa baay sama xarit la woon mu ne ko man de soo waxul laa ilaaha illallaah muhammad rasulullah man danaa la danaa la rey léegi maanaam amri ibnu abudu daal di wëlbatiku rek jubloog moom rek yonent àll caw rek caw rek def ko tili fekk yonentu rawee na ko ñetti kilomètre yonentu ne wallaahi xatalahu mu ne la fata ila ali wala sayfa ila zul siqaar allahumma salli ala sayyidina muhammadin fati lima ulika wal xaatimi سبقنا سراك وراك ولا إلى صراطك المستقيم ولا آلي حق المختار العظيم